nee na noo ngi nuyu mbokk yi fi teew yëpp. ci turu sëriñ Maam Mor Anta Sali Mbàkke mii Cheikh Massamba ci nun nee na mi ngi sant kër gi yëpp. nee na mi ngi sant kër gi yëpp. ndax kenn ku ne teew nga. ndax kenn ku nekk teew nga. ànd ña nga war a àndal. ànd war a àndal. kenn manqué kenn manqué wul. boo xam ne. muy bis boo xam ni. bis bu bégloo ma Massamba la. bis bu bégloo ma sàmba la. ndax mu woote. ndax mu woote. te woote bi di wooteem bu njëkk. te woote bi di wooteem bu njëkk. ñëpp ñëw. ñëpp ñëw. kenn manqué wul. kenn manqué wul. ñu bokk taxawaay yi. ñu bokk taxawaay yi. bokk bi. bokk liggéey bi. ba lépp sotti. ba lépp sotti. ni ñu ko bëggee. ni ñu ko bëggee. nee na loolu mi ngi ciy lool. mi ngi ciy bég lool. di leen ci sant bu baax. di ñaan yàlla. di ñaan yàlla. ñu def ko ay ati at. ñu def ko ay ati at. te mu jiite ko. te mu jiite ko. ba mu soob yàlla. ba mu soob yàlla. ndax nit la koo xam ne. ndax nit la koo xam ni. ku am pas-pas la. ku am pas la. bëgg njaboot gi la. ku bëgg njaboot gi la. ku bëgg njaboot gi bennoo. ku bëgg njaboot gi bennoo. ànd. ànd. nekk benn. nekk benn. di yëkkateendoo. di yëkkateendoo. di tegandoo. loolu mooy bëgg mooy bëgg-bëggam moom mi. wax nañu ko ba tàyyi. wax nañu ko ba tàyyi. nenu. nenu. na ngeen ànd. na ngeen ànd. nekk benn. nekk benn. bokk taxawaay. bokk taxawaay. di jëfandoo. di jëfandoo. di bàyyeendoo. loolu loolu loolu loolu mu bëgg nag. loolu mu bëgg nag. bu nu ko defee. bu nu ko defee. sunu njëriñ rek lay doon. sunu njariñ rek lay doon. te lépp loo xam ne. te lépp loo xam ne. song nañu ko. song nañu ko. danañ ko daan. danañ ko daan. loolu nag. loolu nag. moom la leen di fàttali yéen ñëpp. sëriñ bi loolu la ñuy fàttali ñun ñëpp. ñu góorgóorlu ci loolu. ñu góorgóorlu ci loolu. taxawaay boobu. taxawaay boobu. doxin wi. ak doxiin wi. dara bañ sooxe. dara bañ cee sooxe. loolu de buñ ko defee. loolu de bu ñu ko defee. danañ def mbégteem. danañ def mbégteem. te tey ñun de. amuñu lenn lu dul. amuñu lenn lu dul. moom mii muy Cheikh Massamba ci sunu kanam. moom mii muy Cheikh Massamba ci sunu kanam. kon nag mbégteem. kon nag mbégteem. sunu mbégte lay doon. sunu mbégte lay doon. te dana doon loo xam ne. te dana doon loo xam ne. daf ñuy gën a jëmee kanam. daf ñuy gën a jëmee kanam. waaye du ñu delloo gannaaw mukk. waaye du delloo gannaaw mukk. loolu nag. loolu nag. bëgg nañu ñun ñëpp ñu xam ko. liggéey bii ñu fi doon def itam. liggéey bii ñu fi doon ñu fi ñu fi def itam. ñu ngi ñaan. sëriñ bi mi ngi ñaan. mu mu mu dem ba double ba double fi. mu dem ba double fi. loolu mooy yéeneem. loolu mooy yéeneem. mooy bëgg-bëggam. mooy bëgg-bëggam. ndax lenn lu ñuy defal Seex ma sëñ sëñ Touba. ndax lenn lu ñuy defal Serigne Touba. bëggu caa des ginnaaw. bëggu caa des ginnaaw. su sañoon. su sañoon. ca kanam lay nekk. ca kanam lay nekk. lu ñu defal Cheikh Massamba. lu ñu defal Cheikh Massamba. bëggu caa des gannaaw. bëggu caa des gannaaw. su sañoon su sañoon. ca kanam lay nekk. ca kanam lay nekk. kon nag doxin woowu. kon nag doxin woowu. xam ko nu xam ko. te ànde noonu. te ànde noonu. bokk benn taxawaay. bokk benn taxawaay. benn bëgg-bëgg. bokk benn bëgg-bëgg. bu ñu ko defee. lii bu ñu ko defee. dana danañ ko sagal moom mii nga xam ne mooy Cheikh Massamba ci sunu kanam. danañ ko sagal moom mii nga xam ne mooy ma Massamba ci sunu kanam. danañ sagal Cheikh Massamba ci ci mboolem taalibe yëpp. ci mboolem taalibe yëpp. yal nañu yàlla dimbali. yal nañu yàlla dimbali. mën a sax ci loolu. ba ñu mën a sax ci loolu. bañ caa soppi dara. te bañ caa soppi dara. bis bu ko wootee tee. bis bii bu ko wootee tee. na ñëpp ñëw. na ñëpp ñëw. te lépp lu ñu lu ñu man ñu def ko ci. te lépp lu ñu man ñu def ko. loolu bu ñu ko defee. loolu bu ñu ko defee. dana dëppoog mbégam. dana dëppoog mbégam. dana dëppoog li mu bëgg lépp. dana dëppoog li mu bëgg lépp. kon yàlla nañu yàlla dimbale. kon yàlla nañu yàlla dimbali. ba nu mën a nekk foofii. ba ñu mën a nekk foofii. ndax foofu mu bëgg kat. ndax foofii mu bëgg nag. fa la Cheikh Massamba nekkoon. fa la Cheikh Massamba nekkoon. ca kanam Serigne Touba. ca kanamu Serigne Touba. doon jëwriñam joo xam ne. doon jëwriñam joo xam ni. kenn jiituwu ko ci Serigne Touba. kenn jiituwu ko ci Serigne Touba. am na ci Serigne Touba loo xam ne. na ci Serigne Touba loo xam ni. bariwul ñu ko ci am. bariwul ñu ko am. kon nag loolu. kon nag loolu. njabootam. njabootam. buñ fi desee. buñ fi desee. foofii rek lañ war a nekk. foofii rek lañ war a nekk. te bañ caa soppi dara. te bañ caa soppi dara. mi ngi ñaan yàlla yàlla yàlla defal kër yëpp. mi ngi ñaan yàlla na yàlla defal kër yëpp. xéewal. ba lu ñu song lu ne. ba lu ñu song lu ne. mu jàppandi. mu jàppandi. yàlla mën na ko. yàlla mën na ko. sañ na ko. yàlla na ko def. yalla na ko def. xam nañ ne itam. xam na ne itam. yéen a ngi ci liggéey bu mag. yéen a ci liggéey bu mag. muy liggéey jumaay Cheikh Massamba. mu liggéey jumaay Cheikh Massamba. yoo xam ne ay nangami téeméeri million lay doon. joo xam ne ay nangami téeméeri million lay doon. waaye loolu du tee. waaye loolu du tee. li ñu war a jëf. li ñu war a jëf. ci yoon wi. ci yoon wi. war koo jëf ci jumaa jooju. war koo jëf ci jumaa jooju. ñu di ko jëf ba mat sëkk. koy jëf ba mat sëkk. te xel na ci bu baax. te xel dal na ci bu baax. kon nag loolu ñu góorgóorlu ci bu baax. kon nag ñu góorgóorlu ci bu baax. kenn ku ne. kenn ku nekk. buy ñëwati ëllëg. buy ñëwati ëllëg. lu mën a dolliku. lu mën a dolliku. na ko ca dolli rek. loolu mooy li am solo. loolu mooy li solo. Eh, eh, noonu rek noonu rek mooy mooy li am solo. ne ne nii ñu yokkee liñ daa def. ñu jëmee ko kanam rek. ndax luñ defoon daaw. def nañ daanaka. lu ko doublé. te ñoom ñëpp seen xol ci ànd ne li ci am solo. mooy lii mu lii rek. li sëriñ bi feddali rek. nañ ci góorgóorlu. nañ ci góorgóorlu bu baax. ndax nun ndax nun yàlla dogal na. yàlla dogal na. nuy mbooloo moo xam ne. nuy mbooloo moo xam ni. li nu am. li nu am. yombut. yombut. woote. woote. kër kër teew. kër yëpp teew. mag ak gone. mag ak gone. taalibe yu mag yi sax teew. taalibe yu mag yi sax teew. loolu yombut. nee na loolu yombut. te yàlla defal na ko ko. te yàlla defal na ko ko. kon nag loolu yàlla na jëm kanam. kon nag loolu yàlla na kanam bu baax. ba nga xam ne. ba nga xam ni. fa fa fa mu nisara àgg. fa mu nisara àgg. yéene ko. yéene ko. sunu borom dana ko dimbali. sunu borom dana ko dimbali. àgg foofee. ba na àgg foofee. te wa maa zaalika bi aziz. te wa maa zaalika alallaahi bi lu yomb yàlla la lu yomb yàlla la. yàlla na ko yàlla def. waaw ndax moom. nee na su leen gisee. nee na nee na ci seen maam lay dem. nee na ngeen àndandoo yéen ñëpp. seen xol nekk benn. nee na muy seen taalibe baay. di seen taalibe maam. ngeen ñëw ne ko. jëmmal nañ la ngir Seex ma Masamba te muy dëgg seeni xol nee na mu seetlu ko gis ko ngeen jëfe ko nee na yokk la ngeen daa def lépp nee na boole nee na rek sëñ ak Seex ma sàmba na moo ngi ñaan ñun ñëpp ak taalibe yëpp sunu defaru tey ak ëllëg noonu rek am defaru tey ëllëg. ci darajee sëriñ bi. bisimilah darajee sëriñ bi. ci darajee bi. ñu ñaan ba noppi nag sëriñ bi na nag ñu maase sëriñ bi ñaan sëriñ ñëpp toog baañ ba noppi. kon bisimilah fu waaye toll na taalal bisimilah amin amin amin nee na talibé bu ñu dajeeti. nee na bu ci dalee kenn ci waa kër sëñ Massamba. na ko def ni sëriñam. na ko def ni sëriñam. na ko def ni sëriñam. nee na benn bopp lañu. talibé yëpp. nañu àndandoo. nekk benn. wa taawanu alal birri wa taqwa ko wax. dee leen jëm ci mbaax. ak ragal yàlla. waaye bu leen dimbalante ci bakaar aki i noono ak i jëw waaw ak i jëw waaw tubarkalla na am na ñu bëggoon muy woote màggalu ma sàmba gi ñëw muy woote màggalu Cheikh Massamba gi ñëw di war a yemoog ñaar mois de décembre ah, ñu war koo waajal. ñu war koo waajal. war koo yëgal taalibe yi. war koo yëgal taalibe yi. fépp nekk. fépp fu taalibe nekk. bu déggee woote bi. bu déggee woote bi. mu wuy si. mu wuy si. lum sori sori. lum sori sori. ak fu mu mën a nekk. ak fum mu mën a nekk. sëriñ bi boole na ko ci. na loolu sëriñ bi boole na ko. waxtaan waxtaan ak woote boobu nag. nee na waxtaan woowu ak woote boobu nag. xëy na mën naa doon ci jotaay bii. nee na xëy naa mën doon ci jotaay bii. beneen jotaay. mën naa nekk ci beneen jotaay. boo xam woo kër gi. boo xam ne dinañu woo kër gi. ñu teewe ko. ñu teewe ko. nañ ko daa wootee. nañ ko daa wootee. ñu wootee ko wootee ko noonu. te ñaan ñëpp wuy si. nee na boobaa mi ngi ñaan ñëpp wuy si. ña nekk ci bitim réew. ña nekk ci bitim réew. man ko te man ko. buñ see sax baax na. buñ teew see sax baax na. ci réew mi nag. ci biir réew mi nag. nee na bàyyiwul kenn. nee na bàyyiwul kenn. bàyyiwul ñenn. bàyyiwul ñenn. si woote na ñëpp wuy si woote boobu. jërëjëf jërëjëf mu mel ni mbokk yi maa ngi jégul sax bu baax a baax waaye Serigne Cheikh mii moom moo Mahmoudan daf ma wax ne ma wooteeg màggal gi ren dafay woote wu njëkk ci Serigne moo Anta Sali moom Serigne Massamba yàlla na fi yàgg te wér moom rek sama yéene de moo doon buñ ci àggee képp kuy si woote bi xam xam na méngoo naag dayoo méngoo naag yéeneem moo tax ma ne da sañoon de bu sañoon buñ ci àggee kër yi niñ daaw wuysooy naka jekk rafet na waaye nag danañ ko yokk bu baax a baax ndax mu gën a jëmmal sëriñ bi mu teg ci ne moom day ay magam bi ñu fi nekkee kenn ku nekk bi mu xasee jaayanteeg yow noppee naa xam dara ca liggéey ba loolu topp la ci na mu gën a rafetee nee na loolee nag mu toppee woon ay magam ba Cheikh Moustapha mi ci mujj yàlla na ko yàlla dolli ngërëm ak ña jiitu nee na loolu la bëgg ñu fetliwaat ko ci moom yeesalaat ko ci moom gën a dëgëral suñu laxasaay nee na danañu dimbal ba ci ak bëggam ci ñun mu nekk ñun ñu mën a mottali suñu yéene ci ñoom lii sëñ Cheikh moom ko wax moo tax nag comme mbajoon mbooloo mi dajane ni ma jottali ko waay foofu danaa ko gaaral nee ma daal nam toppoon ay magam rek bëgg na gën ko feddali kon sëriñ bi nga dimbalu ñu ñaanal ñu ci ba noonee ñu ko yéenee ñoom mu dëppoog sa yéene mu dugg ci sa biir yéene ba ni ko ko bëgg ñu ko ni loolu dafa mënta war a ñàkk mu jotte ko ndax dafa moo koo gaaral wasalaamaaleykum wa rahmatullah